mbir maa ngi wéy di am coow ba léegi gannaaw buñ déggee ay audio yu tas ci réseau sociaux yi li ni mel ñu bëri jàpp ni kàddu Amadou Ba balaa loolu nag daal di jur coow bu baax a baax loolu nag doon li nga xamante ni lu mën a nekk la ndaxte jamono ji intelligence artificielle dafa daal di am doole. am na ay euh, logiciel d'intelligence artificielle yoo xamante ni yàgg boo ko def entraîner ak sama voix mu yàgg di déglu sama voix sur une certaine durée rapidement texte boo ko mënti jox mën na ko lire. comme si man maa ko liir. am na ci benn bu doy waar bi nga xamante ni je vais je préfère taire le nom boobu il suffit juste mu am 3 minutes 3 secondes autant pour moi ci li nga xamante ni mooy échantillon vocal par exemple su ma ne salaam nangam sangam bu jëlee loolu mën na reprendre la voix les conditions d' enregistrement ak environnement bi nga xamante ni ci nga ko enregistré. manipuler ay ojo manipuler ay kàddu jàmbur li ni mel daal di yàgg lool suñu sukkandikoo si ñoom ñi lee looloo tax ñuy xam le nii dina jafe lool. ngir ñu mun a vérifier. pour benn audio bu nga xamante ni ko généré par intelligence artificielle bu génnee di nga sentir def euh, di nga sentir bi ay ay yenn indice ci voix bi soit voix bi dafay xaw a métallique wala li muy wax di fluide comme ni may waxee nii ak yow wax bi am articulation xam nga voix bi dafay xaw a robotique xam nga comme si yow booy boo ngay déglu. Euh, tonalité bi noonu du doon lu nga xamante ni moom nga tàmm di dégloo. gis-gis li mooy dañoo war a fexe ba def ndànk ci mbir yi ngir rek mën a xam ana la dëgg ji féetee ci yile audio. Euh, modifier voix sax dépassé nañ ko léegi dem nañ ba vidéo ci boppam la ñuy jël nit di ko def loo di ko waxloo li nga xamante ni. xamu ko musu koo wax te nit bu ko seetaanee day yaakaar ne moom moo ko wax te déjà pour vérifier procédure boobu c'est compliqué waxuma la ak procédure de modification de voie nga xamante existe na maintenant ça fait plus de dix ans donc nit ñi kay ñoo war a di moytu di prévoyant di bañ a gëm n'importe quoi wala di bañ a gëm lépp li nga xamante ni ñu ngi koy gis ci internet mi